dali na jàmm ñu ànd xëy yër yéenekaay yi nga xam ne moom la ñu xëyandoo sénégalais yi nga xam ne ñoo nekk ca bitim réew jamono ji nag mer nañu ba maara day taali la waral nag mooy état bu Sénégal moom moo jël ab dogal ne képp koo xamante ni faatu nga bitim réew te woppi coronavirus ji daat lay ray yow daal ca bitim réew la ñu lay daal di denc loole nag maanaam seen njaboot yi nekk fii ak ñoom ci seen bopp di moodu moodu yi maanaam mënuñu koo dégg benn yoon keroog bi ñu déggee ministre de la santé ak Amadou Ba mi ñu dénk mbirum affaires étrangères daal di koy wax ba léegi ni moodu moodu yi dal maanaam ñoo ngi am ñëgg-ñëggu xola ba ñu demee nag ba mbir mi tar mënatuñu koo muñ yéen kaay gi di réew mi ko di quotidien ak le témoin nee na nag diaspora bi dañoo yóbbu Macky Sall ca kanamu cour suprême maître Assane Dioma Ndiaye mi nga xamante ni mooy googu googalee kuréel dafa daal di wax ne mën naa am ay matukaay yoo xamante ni bu ñu ko jëlee képp ko fa faatoo mën nañu laa indi ci réew mi te doo wàll kenn ndax bëri na ay réew yoo xamante ni ñoo ngay doxee noonee ñoom daal li ñu xamle mooy mbir mi duñu ko nangu tey duñu ko nangu yéen kaay gi du l'observateur ak libération daal di xëy dikk nag ci garab yi nga xamante ni waa Madagascar ñoo ko yónnee Sénégal muy Covid organique bi lu jëm nag ci wàllum càmbar ko jamono ji état bu Sénégal daal na si taxaw a jébbal naka sax ñi nga xam ne ñooy direction de la pharmacie yéen kaay gi nee na professeur Daouda Ndiaye moom mi nga xamante ni mooy coordonné lu jëm ci wàllum càmbar gi maanaam essayé bi daat nay wax ne jéego yi nag dañu koy daal di baral ndax woppi ji moom amul lenn loo xamante ni maanaam ma ngi koy daal di xaar mbootaay gii di OMS di organisation mondiale de la santé ñoom nag nee nañu dal dañuy amal nag ab essai bu mat sëkk bu dëgër këcc bu leer nañ bu wóor ci li nga xamante ni mooy médicament traditionnel yi bala ñu koy jël di ko jox nit ñi yéen gii di laas xëy yóbbu ñu diiwaanu Medina Gunaas daat nay wax ne foofe nag caaf ma nga fay xëm musiba ma ba kumba gu doy waar soo moy tuulee dina xew Medina Gunaas ndax ki nga xam ne mooy médecin chef ba moom moo amee woppi coronavirus ak njabootam ñu daat leen di quarantaine am na ñett tamit ñoo xamante ni ñoo fay liggéeyee ci kër docteur ñoom tim amee nañu woppi coronavirus journal bi mu ñuy xamal nañu lu jëm ci wàllum état d'urgence beeg couvre-feu bi amul lenn loo xamante ni waa Médina Gounass daan nañu ko si respecté moo taxit am na ñaari escadron yu gendre gendarmerie yoo xam ne dañu leen a teg ca diiwaanu tàmba ñu waaj ba jekk pour intervenir ndax nag gis nañ ne Médina Gounass respecté wuñ li nga xamante ni mooy état d'urgence bi yéen kay gii di la quotidien moom mu xëy di wax ne lépp loo xamante ni dégg ngeen ñu ne xew na Medina Gunaas buumu leen daal di bett ndax nag lu toll si ñetti fan rek lu toll ci fanweer ak ñeent ci ay nit daat nañuy amee woppi coronavirus ci fi nga xamante ni mooy Medina Gunaas yéen kaay gi ñu fekk fa économie si bi di Xaadim Bamba Njaay daat nay wax ne Sénégal nag nañu bàyyi rambax rambax ji ak tell tell ji def ndànk am na loo xamante ni nag bu ñu ko moytuwul ci ab catastrophe la ñu jëm bu ñu toppee état d'urgence bi ndax nag bëri na ay entrepris yoo xamante ni jamono ji dañoo loof ba maara day taali maanaam ay jafe yu métte métti li am ba des mooy woppi coronavirus ji ma ngi law ci réewum Sénégal journal bi di Vox Populi moo xëy di ñu ko xamal réew mi quotidien daal di kay feelu daal di wax ne jàngoro ji ak ni muy lawee ci réew mi est ce que nag Sénégal du ñu dem ci ab confinement boo xamante ni samedi ak dimanche maanaam kenn du génn yéen kaay gi mu ñu xamal nañu nag ñi nga xam ne ñooy maire yu Sénégal ñoom tim daat nañuy mer ba maara day taali ñi mer ci réew mi ñoo bëri maire yi nag li leen merloo mooy seen autorisation yi nga xamante moom la ñu leen maanaam ñuy circuler di tambaambalu dem ak dikk loole nag Aly Ngouille Ndiaye mi ñu denk kaaraangi réew mi dafa kaa daa di dakkal yéen kaay gi di réew mi quotidien moom ti mu daa di xëy wax ne c'est la première fois nag politique gu Sénégal ñu daa di koy confiné am na ñoo xamante ni xëyoon waxuñu politique ci réew mi dafa meloon ni bu ñu ko defee rek maanaam feebar lay nekk ci ñooma ku ci mel ne Abdoulaye Wade ak Ousmane Sonko ak Idrissa Seck ndax Sénégal xam ngeen ne ñaari ban ñett ngeen doon dégg ñuy wax kaa Karim Sall Assane Samb nee na loole lépp déggatoo ko fi coowal Cheikh Omar Anne Pape Alé Niang bi lépp dañoo gas bu mu xóot daal di koy suula Mamour Diallo mi ñu doon dégg ak Ousmane Sonko 94 milliards yi loolee lépp bàyyi nañ ko ci réew mi ana lan moo ko waral Assane Samb nee na Covid 19 bi rek kese dong moom la yéen kaay gii di source a moom mu xëy di ñu xamal nañu Omar Ndiaye Angoloma ko nag chargé de mission la ca présidence maanaam koo xam ne ab doxkatub yónneent la moom dañu ko nag tuumal ci ak ak njub la nga njuuj njaaj akuk tappale goo xam ne toll na ci fukk ci ay million benn waay bu tudd daaw de Seck moo ko waxoon na ko Omar Ndiaye Angloma man dama am ñaari conteneur yoo xam ne waa douane ñoo si teg loxo ana nan laay def ba lijjanti ko Omar Ndiaye jël engagement ne mën naa kaa lijjanti Daawuda Seck jox ko lu toll ci fukk ci ay million mu koy dawloo ba léegi nii France daal di xëddee moom Omar Ndiaye Angloma daal di xamal Daawuda Seck sek ko man kenn mënu maa yóbbu kaso ci réew mi ma téere si yéen a kaay Libération L'Observateur Enquête Vox Populi L'As mu ñu xamal lañu Bara Gaye bu Kilin Owil moom na da doon def ab mariage am ak Adja Diène ñu naan ko Zeyna ñoom jamono ji nag ñoo ngi leen na ràpp ca section de recherche la ko waral nag ñoom daal dañoo respecté wu li nga xam ne mooy état d'urgence bi maanaam dañu doon xumbute xumbaay mbumbaay rumbaay yéen a kaay gii de la turbi nee na Bara Gaye la Alassane Mbaye ak ki nga xam ne mooy Adja Diallo ak Ndeye Diouf mu Serigne Fallou ñooñee ñëpp ñoo nga section de recherche yéen a kaay gii na yokk Diallo ak transitaire bii di Mansour Ndaw libération yéene kay ne li am ba des kay mooy Bara Gaye Clean Oil moom ak soxnaam Sidi na ñoom seen lune de miel ñoo ngi koy defee ca section de recherche journal bi di sunu lamb ñu fekk fa nag ki nga xamante ni moom mooy Bombardier nee na Alioune Sarr mi jiit seen CNG dafa doy sëkk jamono jii doyal nañ si Aliou Sarr maanaam ay kanam yu yees la ñu soxla ci kuréel gii di CNG ndax nag bëri na loo xamante ni daal tàggatémbe na fa Alioune moom moo ko yàq